gay Issa Pouye ñu ngi ci diggu geew bi ña nga won ci ca ibamar job Mar Diop Issa Pouye daan Balla gay mbokk yi nek isali ñi ngi leen di nuyu ñi nek Europe yeb Allemagne Souleymane ma Espagne Suisse Espagne France am nga fa ay xar Maroc ñoom Madiagne Ndiaye xam na mi ngi toog si daan match bi ndaysan si daan lamb ji ñi koy félicité aussi ci combat bi passé ma Thank you. Njaay war arbitre bi sifle na jërëjëf Gaston arbitre bi na mbokk yi diggante Issa Pouye ak Lac de ak euh, Balla Gaye numéro 2 Issa Pouye léewtoo na ba mu neex ko mu dox Issa Pouye na ba mu neex ko mu dox mu doxe ginnaaw mu ngi léemu Balla Gaye nga koy xaar Balla Gaye nga koy xaar Balla Gaye a ngi koy xaar Balla Gaye a ngi koy xaar làmba metti géer ñu noppi nanu géwél yeey wax géwél yeeg rek ngay dégg ñooy tëgg ñooy way yéen a yi da a baax mais yéen a man lépp tey vraiment euh, bégaay nag ñuy gërëm aussi sponsor yi ñoo jàpp bi jeexee mais bëreetul de Issa Pouye Balla Gaye a ngi wax Balla a ngi taxaw Issa Pouye Balla nanguwul dox jéggi centre bi Balla nanguwul dox jéggi centre bi Balla Gaye jéggi na Issa Pouye Balla Gaye Balla na Issa Pouye jël na Issa ñu ngi ci saako yi Balla ngi dóor ci suuf Issa Pouye ngi jàpp ci ngemb Issa Pouye jàpp ci ngemb ngi dóor Issa Pouye Balla Gaye ngi dóor Issa Pouye ngi jàpp Balla Gaye ak Issa Pouye Balla Gaye ngi dóor Issa Pouye mi ngi jàpp Issa Pouye Balla Gaye Balla Balla Issa a ngi fàqat Balla bañ na Balla bot na ko génn nañu ci biti duggaat nañu ci biir Balla jàpp na ko wër na ko ndombo Balla wër na ko ndombo Balla daan na ko Balla daan na ko Balla Gaye daan na Issa mbokk yi jàkkaarloog 2STV neewoon ko neewoon ko ci signature bi sama soppe yi ñoo tax def leen nànk ñun ñëpp ñu liggéey waaw def leen nànk rek ñun ñëpp ñoo bokk li ñuy liggéey la presse may leen photographie ñoom it ñu ñëw jël li ñuy jël yaakaar naa ni yaakaar naa ni bu nu suñu réalisateur mën a envoyé le combat ñu xoolaat combat bi le temps ñu may le lutteur mu respirer waa combat baa ngi noonu. mi ngi noonu ballaa ngi dóor foofu foofu dóor la choisir Issa jéem na ko fàqat jàpp na ci loos bi jéem naa xëcc balla bañ toujours balla continue dóor yi balla dóor continue di dóor mi ngi noonu di wut di ngemb mi ngi Issa xëcc na mais teewul Balla ngi continuer di dóor mi ngi yóotu ak loxo càmmoñ bi mais jotul dara parce que foofu Issa mi ngi jàpp ci ngemb mais Issa aussi mi ngi jàpp ci téeral loxo bi nga xam ne mi ngi ci loxo ndijoor bi Balla dóor ndeysaan toute la presse est ñoom ñëppam ngi ñu ngeen di dégg Xaadim Samb Thierno Ndiaye sa xaa Issa jéem na ko faqat Balla jéem a mbot mbot ba eggul Issa génn na géew bi dugg si waat xëcc na ko ndeysaan ndeysaan bàyyiwu ko ba tey xëcc na ngemb li ba mu ñëw mu jàpp ko mi ngi noonu ndeysaan waa baax na kon mbokk yi loolu mooy jël bi le temps Balla Gaye pare na ñëpp mën nañ poser question mais ngeen baal nu ñu liggéeyandoo ñun ñëpp c'est la famille Balla waxal ci combat bi auzu billaahi mina sheytaani maa ngi sant yàlla bu baax julli ci Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam di sant aju di sant Balla Gaye mi toog xamante ne ginnaaw mooy lépp tey may reyante ndax signature bi waxoon naa woo boo ñoom du reyante mais sant naa ci yàlla bu baax ba nga xamante ne saapuy bëri nañ njëkk nañu bëre yàlla may ko ndam sama kaw bëre waat tey yàlla defal ndam maa ngi sant yàlla bu baax bi nga xamante ne moo waral lii yëpp ah donc man maa ngi sant yàlla bu baax a baax baax di gërëm sama supporter di gërëm sama supporter yu nekk France franchement dañ may ne suma xaalis bu doy franchement càpp combat bu wér kon combat bi nii rek la combat

def demi fa oh, yaram bi di tax ma bayiko xëc ngembali wëlu ko wëraat ko nomba euh oh, japp loss bi biij ben tang combat ci kan la jëm. xel yi daal fu mu dem. man daal kenn foo jamono ji mu. baal ko war a baal kenn ko war a bañ. Moustapha. kenn ko war a bañ. Balla Gaye 2. non tout ça. béy béy benn man moom. maa ngi ci laaj ji. kon Moustapha Gueye numéro 1 numéro 2. Baye la.